mbokk internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun daleen nag jàmm ci li gën a ci réew mi dogal ba wàcc na gannaaw bi taalibe yi xaaree lu yàgg-yàgg sëriñ Babacar Sy Mansour di xalifa général des Tidianes gindi na leen ndax jël na dogal ni rek gàmmu Tivaouane atub ren bi moom duñu ko amal loolu nag Serigne Babacar Sy Abdou moo ko xamle tey ca ba muy jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi si noonu nag muy sàkku ci taalibe yi ngir ñu xaar ba déwén rek te gàmmu ren bi ku nekk daal di koy gàmmoo ci sa biir kër dogal boobu nag dañu koo jël rek gannaaw bi ñu gisee ni mbas mii di Covid 19 ba tey jii rek jeexagul ci réew mi te jàkka yi ba ñu ko jiyee ba tey rek kenn julliwu ci te julli farata la waaye li nga xam ni gàmm sunna la ba tax rek du am ren waaye foofee ca Tiwaawan ñi nga xam ni nag ñoo fa rek mustarsidiin yi ñu màggal guddi juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xibaar boobu nag seen cellule de communication ñoo ko fësal ci ndigalu seen njiit di Serigne Moustapha Sy ñoom nag nee nañu rek gàmm gi dinañu ko amal. comme ni ñu ko daan amalee ca san de course ba nekk ca Tivaouane waaye nag ci kaw rek ñu dëppoo ko li nga xam ni moo di mesure barrière yi Maxari Mbay di chargé de com bu daayira Moustarchidine yi moo ko xamle ci rajo Futurs Médias dogal boobu nag gannaaw bi ñu amalee réunion ba noppi la ko Serigne Moustapha si daal di jël ñu woyal addu ci mbirum Aliou Dembourou Sow di député APR ca Ranérou moom nag kàddu ya mu yëkkati woon ne rek ku nara a xañ Macky ngir mu bokk si jongante njiitu réew yi di ñëw euh, ñoom askanu Halpulaar yëpp dinañu daal di jël jaas yi jàmmaarloo ak yow euh, te nag ñu bari daal di ko ñaawlu Abdou Karim Fofana nag moom di jëwriñ bi ñu dénk wàllu urbanisme losement ak hygiène publique daa jël défense maanaam nag daa mel ni rek ku ànd ci kàddoom yooyu kon bokk na si group bi nga xam ni ñoom ñooy jàppale ak a dooleel démbaru moomu tax rek ci benn waxtaan bi mu seexoon ak waa rajo Futurs Médias da caa wax parti boobu di journaliste yi ñoo ko garaawal àggal ko fu mu àggul euh, mu teg ca ni nekk xam na bu baax ki nga xam ni moo di Dembourou Sow moomu te it xam na ni du nitu fitna te it ku responsable la waaye média yi nag euh, ni ñu càmbaree ay kàddoom du noonu ndax rek bu waxoon luy yee fitna moom Abdou Karim Fofana mooy njëkk a dal ci kawam. gannaaw bi ñu nee day joxe place ñetteelu ko vice président bu assemblée nationale te mu weddi woon ko maître Abdoulaye Babou euh, ñëw Tidiane Gadio di njiital mouvement panafricain et citoyen luy jot jot na jeexal na tàkk mandat wu député wam mu teg kenn nag poste d'envoyé spécial bu francophonie ngir réew mu Mali méngoowul ak li nga xam ni mooy mandat wu député moom avocat bi teg kenn ni article 110 bu règlement assemblée dañu ko war a jël si Gadio moomu te article bi daa wax ni rek bépp liggéey bu jëm ci fonction publique méngoowul ak li nga xam ni moo di mandat député ñu jàll ci maître mom nak da melni ku déconfiné PDS ba nopi nak bëgg koo suqaliwaat mu melni ni parti démocratique sénégalais rek da bëgg a dundaat ndax secrétaire général ba fa rek jël na dogal demb ngir rek ñu tàmbaliwaat jaayuma carte yi ak andi ciopité eh, ci yenn rek ndombal tank yi ñu woyal addu ci lenen eh, mom Mouhamadou Mohamed Ndiaye nek nak taskatu xibaar ci groupe ci rek warugar bi nga xamni mom lañu joxo ñu jox Mbathio biñu ko fësal mom nak ñaawlu na bu baaxa baax siwol bi nga xam ni moom la Mbathio siiwal lañu ko jox warugal ndax xamle na ni rek góor war naa sagal jabaram te kenn du ko yëg waaye nag rafetul nit di fësal li nga xam ni moo di vie privée ndax rek euh, ñenn ñi rek mën nañu see am ndax ñeete rek mën na cee am te it nag mën naa tiital ñi nga xam ni amuñu rek lu ñu joxe te bu ñu gisee nag ku joxe juróomi million da leen di daal di rusloo Oustaz Modou Fall itam àdduna si rek warugal yu rëy yi nga xam ni moom lañu gis jamono ji ci suñu star yi euh, mu wax ni nag nañu moytu concurrence bi def ko rek tendance mu xam leen ni nag jigéen euh, mérito na lu nekk euh, ndax yàlla moo ko sagal comme nag euh, lu ko góor defar rek da koo mérito waaye nag xale yu jigéen yi waruñoo topp li ñuy gis fan yi ba tax rek ñuy teg góor ñi li nga xam ni àttanuñu ko ndax bu ñu ko defee rek dinañu dund ba dee te duñu am jëkkër Soumboulou Bathily moom it waru garam defoon na bës bu baax a baax ci réseaux sociaux yi gannaaw ay fan nag bi ñu ko mayewee rek ak léegi Soumboulou photo yi mu fësal wane na ni rek moo ngi si jàmm bu baax baax a baax te it nag moom moo ngi neex ndax photo ya nag da caa gën a gën caa taaru euh, ba tey rek ñu gis ko ci benn vidéo sinap moom ak jëkkëram euh, ñuy déglu nag woyu Mouhamed Niang boobu di Masaalikul Jinnaan euh, mu mel ni nag jamono ji sumbulu moo ngi sëy sëyam si jàmm ñu jeexal ak matsu xaritoo bi waroon a am ci tey jii ci 19h foofee ca Thiès ci diggante Sénégal ak Mauritanie jongante boobu nag dootul am ndax bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu fédération sénégalaise de football fësal fësal juróom-ñett ci ay membre bu délégation mauritanienne bi ñoo gis si ñoom rek doomu jàngoroy coronavirus bi ba tax na rek match boobu dootul mën a am kon mbokku internet yi fii laay yem ak yéen ma jox leen dig daje ëllëg incha allah ay laata boobu wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte bés suñu cloche de notification bi ngir mën a jot suñu yeneeni vidéo jërë ngeen jëf